salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen mbokki internet yi ñuy seetaan partout dans le monde ci enquête 221 ak Maktoum Prod ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara am mbégte lool tey ñëw fii seet ci ki nga xam ne mooy oustaz Cheikh Ahmed Tijani Sarr mbokk yi xam ngeen ne amaloon nañu benn ziyaar ginnaaw tamxarit fële ci Tiwaawoon ak sang bi Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Al Maktoum mu nekkoon jotaay bu am solo jotaay boo xam ne yéene na fa ñu baree bari ci li nga xam ne mooy actualité xew ci réew mi ci ki nga xam ne moom la ñu yëkkati di bàyyi Khadim Touré fële ca Tiwaawoon ci biir waxtaan bi nag yëkkati na fa ay kàddu kàddu yu am solo yoo xam ne yeewaat na njaboot gi ba kenn koo xamante ni gëmmantu woon nga mën nañu wax ne sa gëmmantu dem na ci biir loolu nag laataa waxtaan bi jeex nee na leen xam naa ña ngay waaj ngir tontu ci mboolem ñi nga xamante ni tudd na leen ci biir loolu nag tontu ba mu junjoon tontu bi ñëw na te mooy tey bi ñu yeewoo dégg ku ñuy wax abu si muy abu saax di doom ci sayid Cheikh Ahmad Tijani si almaktum yëkkati ay kàddu jëmee ko Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si almaktum ci benn ci émission yi nga xam ne miin nañ ko foofu saa su ne saa buy tontu foofu lay jaar loo tax na tey ñu ñëw seet si ki nga xam ne mooy oustaz Cheikh moom nag ku ko miin miin ko ci wetu sang bi Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si almaktum kenn dootu ko présenté te mu nekk responsable ci daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidaat moom la ñuy seet si oustaz nga wax ñu sa jàngat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 di nuyu Sénégal yi yëpp nag di ziyaare ñëpp di ñaan yàlla kàddu yi ñuy yëkkati yàlla na jariñ te defar euh, su ko defee comme ni nga ko waxee euh, dama jàpp ne jàngat yi ñu ciy am dafay dellu ci ay point te li tax mooy Serigne Moustapha dafa am famille biologique waaye muy famille yu deret waaye tamit dafa am ay famille spirituelle ay junniy junni nit yaakaar ko yaakaar ko ci wàllu tariqa yaakaar ko ci wàllu diine yaakaar ko ci leneen kon lu ko laal rek dafay laal ay junni junni nit te kàddu yi bi ma ciy njëkk a wax mooy wax gi mu wax ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy joxu ko tariqa bi joxu ko ijaaza ma jàpp ne loolu wuute na ñun ak li nga xam ne ni moom lañ xam depuis le début ba fi ñu toll nii te defe naa ni loolu ku dellu ci archive ci YouTube bi imam Moussa Gueye seede la ci ndax jour bi Seyid Cheikh Ahmed Tidiane di jox tariqa bi sëriñ Moustapha moom la àndaloon muy seede di bisu ajjuma di bisu weeru koor nettali na na leen sëriñ Cheikh joxe woon tariqa bi ki desit ma lay laaj sëriñ Cheikh Serigne Moustapha bu ko Serigne Cheikh joxul tariqa bi kan ko koy jox bu bu ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si joxul tariqa bi ana kan mooy jox Serigne Moustapha tariqa bi ku dul moom ndax bañ ko xamee ba léegi benn kilifa lañ ko xamal muy Serigne Cheikh moo tax boo demee ci ijaaza moom yi muy bind te Serigne Moustapha leeral ne waxuma la moom am na ijaaza waaye ijaaza yi ñu daan bind ci daara ji moo ko doon bind moo tax boo ñikki boo ñëwee bu lay jox ijaaza ijaazaam xam nga lan la ca bind kama adina li walidi wa murabbi wa qudwati as sayid Cheikh Ahmed Tidiane si radiallahu anhu عن شيقه وسيده وسنده ووالده الشيخ أبي بكر سه رضي الله عنه عن شيقه ووالده وممده الإمام الحاج مالك ابن عثمان رضي الله عنهما عن شيقه وخاله الفاهم يرو وله عن شمس الظهيرة وبدر الأنوار تاج العارفين الحاج عمر بن سعيد الفوتي رضي الله عنه عن الخليفة الأكبر والولي الشريف الأشهر سيدي ذي المقام العالي محمد الغالي عن الكبريت الأحمر والقدم الأبر القطب المكتوم ذي المقام المعلوم بين القاصي والداني سيدنا ووسيلتنا السيد آه، أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عن جبريل سيد الملائكة عليه السلام kon leeral na silsilam nee na sama wayjur di ko ma yar ci diine ci tariqa di sama professeur di sama royuwaay moo ma ko jox jële ko ci baayam sëriñ Babacar Sy mu jële ko ci Seydil Hadji Malick radiallahu anhu mu jële ko ci nijaayam Alfahima Yoro mu jële ko ci Cheikh Alhaaji Omar al mu jële ko ci Cheikh Mouhamadin al Ghali mu jële ko ci Seydina Cheikh

mu nekk bés boo xam ne bés bu ñu seede la sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh jox ko ndigal mu ànd ak sëriñ Pape si ñu fekk fa sëriñ abdu fekk fa sëriñ Maodo si fekk fa kilifa Tiwaawan yépp mu teewe dëj ba jiite dëj ba sëriñ Abdou def seede yu rëy keroog ca soxna Sofi wax ne li des ci jamono ku gën soxna Sofi dootu ko fekkeeti mune mom nak mën na fa fekk ku ko gën ndax mag ña waye li dess ci jamono ku ko gën dootu ko fekk serigne mawdo si mi wax fa ben bayit ci soxna Sofi safat qalban safar ruhan wa tabat sariratuha bi hubb saalihina mune soxna si dem de safat qalban mom de xolam set xolam sel na safar ruhan ruham sel na wa tabat sariratuhu te biram set na biiram leer na bi xubbi saalixiina ndax ñu baax ñëpp sopp na leen moo taxoon mu ne looloo tax mu mën a jur al murshid te soxna Sufi bokk na ci lim daan seedeel sëriñ Moustapha ngir yàlla fu ko sëriñ Moustapha taxawu ak nekk doom ju baax ci moom daf daan wax kàddu goo xam ne nii gu siiw la daf daan wax sëriñ Moustapha ne ko xol bu sedd doy na ñaan waaye xol bu tàng doy na ñaan mu ne ko nag ñun si suñu xol tàngul dafa sedd kon loolu la seedeel doomam ba ca des ñu wax ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si daf ko dàq ci këram rëbb ko may wax ne ku xam Serigne Cheikh ci dimension humaine am voire humaniste gëwuma ne dana rëbb mbindeef mu yàlla bind ndax dafa donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi moo wax ne inni lam ubaas laanan wa innama bu'istu rahmatan yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yàlla yónniwu ma pour may rëbb nit ñi daf ma yónni pour ma nekk yërmande kon ku donn kooku doo rëbbaate doo rëbbul sax mbindeef waxuma laa nag doom ji gën ci doom ji waxuma laa ak taalibe bi gën ci taalibe yi waxuma laa ak sa liyet naa bi gën a jàmbaara sa liyet naa yi kon doo ko rëbb li nu xam daal nun mooy sëriñ Cheikh tagg na ko ñaanal na ko sëriñ Cheikh tagg na sëriñ Moustapha te ci mbooloo la ko def ñaanal na ko te ci mbooloo la ko def dafa jóge fii dakaar dem conférence Saint-Louis en 1995 ba mu paree ba koy gunge mu jëlal ko hélicoptère daal ni ma fonkee sama baay fonk sama sëriñ fonk sama wasiila diggante Ndar ak dakaar sori na te ñeewant naa ko naa jël hélico ba muy gunge Serigne Cheikh Serigne Cheikh daf ne ko sagal nga ñu yal la yàlla sagal suturaal nga ñu yal ñu yàlla suturaal kooku dégg nañ ko beneen bi ñu dégg it mooy 1999 fii ci foire dégg nañ Serigne Cheikh wax ko ne ko du ñu bàyyi ñu sacrifier la ndax yaa ñu gënal suñu bàkkan loolu de dégg nañ ko kon nag ñun li ñu gis mooy ñaan la ñu gis li ñu gis mooy encourager la ñu gis. li ñu gis mooy tagg lañu gis waaye gisuñu benn yoon fu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si taxawee wax ci sëriñ Moustapha lu dul wóolu ko ci njabootam wóolu ko ci njaboot yi te seede yi bari na li waral coow li nag ndax yi yëpp lu nekk li yëng ko yëngala ko ëpp doole affaire u Baye la affaire u Baye mën nañ ci am ñaari jàngat jàngat bu njëkk bi mooy loo xam ne ni c'est purement humain moy doomu adama yàlla daf ko jox teranga wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal walbaxr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila te teranga bobu yàlla jox doomu adama yamul rek ci bi dund bu faato teranga ba da fay continuer te ni ci ni ko l'islam nango nonu le ko droit de l'homme nango l'homme bi dundu ak l'homme bi faatu dañ leen war a préserver seen dignité réew mu toll ne Sénégal ci wàllu xam-xam réew mu toll ne Sénégal ci wàllu diine réew mu toll ne Sénégal ci wàllu civilisation ñu xëy xëy sulli fa ci légèreté biñ ko defee te dégguloo nitu diine ko wax dégguloo intellectuel bu wax dégguloo droit de l'homiste bu wax tey na xel tey na xel et pourtant lu ne xew na ci réew mi ku ne jël sa kàddu wax mais lu toll nii xew na fi ñépp garder silence boo xam ne nii complicité du silence lay mën a doon walla silence coupable bu mu ci mënta doon rek baaxul ci réew kon mooy dimension bi njëkk nga xam ne képp kuy doomu aadama yëg ci yow ak ndoomu aadama ak dimension humaine sa yaram war na am lu mu yëg ci ñu sulli bàmmeel ku mën a doon ci àdduna loolu ñaaw na ba fa ñaaw yam ñaareel bi nag mooy ñu def ko ci condition yoo xam ne doo xam lan lay firi te mooy sëri Moustapha moom këram yàgg na lool baykaatim faatu ci clinique ñu certifié ne dafa faatu gannaaw feebar ñu wutal ko këyit boo xam ne nii mooy wane ne war nañ koo mën a denc muy certificat d'inhumé mu joxe digal nañ ko yóbbu ca barab ba ko lew ñu denc ko fa ay junni junni nit fekke ko ndax baykaatim mi ngi faatu biñ ne suba la korite ñu denc ko bisu korite ay nit fekke ko ñu defal ko li ñuy defal jullit yépp mooy sang ko sang ko jullee ko ci teewaayu mbooloo denc ko ñaanal ko ñu tegaat ci 21 jours ñu ñëw sulli ko kon defe naa lu toll noonu kuñ ko fi defoon ci réew mi ngay kilifa diine walla ngay homme politique wala ngay koo mën a doon am njaboot yu toll nii moo am nga tukkal àdduna kon Sénégal dañoo war a rendre hommage Serigne Moustapha dal gi mu am tey gi mu am muñ gi mu am tooñ gu toll ni ñu tek ko ci sa kaw boba ak legi nga koy muñ dañ ko wara rendre hommage mais kenn warul yëkëti dara tek ko ci kawam ndax bu kilifa yëpp meloon ne moom ci dal ak ci sago Sénégal dana wessu fii kon nag li ci des mooy li mu wax tooñ baaxul ان الله ya'murukum ان تؤدوا الامانات amanati ila واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ak wala yajrimannakum shanaanu qawmin ala allaa taadilu idilu huwa aqrabu li waa yàlla nee na nit nga ñàkk ko jublu bu mu tax bu amee dëgg nga jox nga nga xañ ko ko ñàkk jublu nit te sëriñ sax moo ko waxoon nee na kii la jubluwul booy sangu ci ndox danga naan yaa ngi koy fëndal du wax sax yaa ngi koy tooyal danaan yaa ngi koy fëndal kon lii mooy dëgg li jaadoo mooy nañu delloo dëgg gi borom dëggam ñu jox ko dëggam jàmm na ñooy pourtant sëriñ bi li mu bëgg soriwul de nañ ko may jàmm rek moom tooñul kenn mi ngi ci yitteem mi ngi ci programme am mi ngi ciy njabootam di leen yar di leen jàngal di leen orienté la ca des nañ ko may jàmm jàmm nañooy ñooy defe naa lii mooy li nga xam ne nii moom moo war su ko defee nag tabaarakallaahu kàddu yooyu lañ doon yëkkati pour leeral pour wane ne njaboot yi yëpp ñi ngi ci gannaaw le responsable moral comme ni mu ko waxee di ko déglu ci biir ak ci biti di ko bàyyi xel ci biir ak ci biti ndax nak limu def ci ay njabotam ci rew mi amul kenn ko ko fi def kon nak tabarakallah ku am dom ju amé valeur nonu ci sa bir rew li nga ko wara def moy jàppale ko dimbale ko pour mu agalé mission ndax mission njariñ la rek ci Sénégal njariñ la ci adina bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu lii mu nekkoon kàddu yu am solo yi nga xam ne moom la ñu ñëwoon jël si ko ci Seydi Cheikh Ahmed Tijani Sarr mam de damaa déggoon ci maam Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum mu wax ne bu fi sëriñ bi sëñ Babacar Sy demee barsax naafiq yi rek a jàdd te loolu itam moo feeñ moom bi mu demee barsax naafiq yi rek jàdd te itam lu mel nii nga xamante ni àdduna yëpp teg nañ ci seen bët àdduna yëpp xam li xew te mooy li xew ca Tiwaawoon comme ni mu ko waxee yàgg yàgg na am lu fi xew ku ne génn wax waaye ñu sulli néew sulli nitu yàlla ci koo xamante ni dafa liggéey ba mag ñi gërëm ko liggéey ba yàlla gërëm ko mu fekki mag ña ñu fekk ko fañ ko jël yëkkati ko boobu ba léegi nag ñu naan Moustapha lan lay wax Cheikh Mouhamadul Moustapha ak dal ga ak tekkaaral ga ba keroog mu ñëw leeral lu baree bari loo xam ne am na foofu ci Tiwaawoon eh, mbokk yi waroon koo gën a xam gën a xam li xew waaye defuñu ko lu dul toog ba tey ji rek ak eh, li nga xam ne moo xew jëlee moom tey ñu xëyaat dégg ki nga xam ne mooy Abou yëkkatiwaat ay kàddu am kàddu yoo xam ne wax na ko ci sang bi Cheikh Mouhamadul Moustapha kàddu yooyu nag moom la oustaz Cheikh Ahmed Tijani doon leeral ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci disponibilité am ndax xam nañ ne sax amul jot waaye may na ñu ñëw mën koo jël ngir kàddu yi mu nga xam ne moom la doon leeral ñu ngi koy jaajafal baax jaajëfal leen yéen ñi nga xam ne yéen ñuy ànd ak ñun saa ne ñu ngi leen di jéggal bu baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërë ngeen jëf macha allah jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi aboneegul aboneel ngeen commenté like suñuy video